ayca salaamaaleykum Boucher Ketchup mon frère maa ngi leen nuyu di la ziar Boucher sa yi ngay def nii di yërëmtalu nii xawma ma la ko woon rëg-rëg nit la ngay nit sport ngay ni def yee ñaar bul ko ragal bul ko calculer mën na laa gaañ mën nga koo gaañ ti mbax di mbax la bu loxo ñëwee na loxo dellu bu loxo delloon loxo ñëwee na loxo delluwaat yaram benn la boo ci dóor mun saf yax la rek ak der ak deret bu la dóoree dóor ko lan la nii ngay woote wàllu naan Aziz Ndiaye na ko woog Elimane Lam na ko woo Fadam est-ce que woote nga Reug Reug nanguwul jël téléphone am bul combine mën nga ko gañe de kan mooy Reug Reug nit la comme ñëpp man ragalu ko de yow boo ko ragalee yow doo ko gañe ñëwee ko ba arbitre beeg ñoom ñëpp boole avant arbitre di siffler dóoral li nga mën yëpp joxe ko li problème bi am nga jom njaboot moo la ci dugal da nga yor bi war a leen mën a dimbali luy problème bi ba pare nga non man fadam laa fadam yow waroon nga dem yow fu rek fu fu fu fu Ketchup demee waroon nga fa dem yow taxawu ko parce que suñu frère la <laughs> te lu ne mën na ci